Ngagne fay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. Ngagne fay nga nekk étudiant ñu investir la ci liste nationale alliance nationale pour la patrie bu honorable député euh, maire Serigne Abdou Mbacké ndaw euh, déjà campagne bi seen côté naka lay dérouler actuellement. Euh, Ndeye Comba tout d'abord dañ leen di remercier bu baax a baax di présenté waat di wax ne Ngagne Faye la étudiant bu nekk université Cheikh Anta Diop de Dakar. plus particulièrement à la faculté des lettres maintenant je suis inscrit à la faculté des droits aussi dañuy remercier waat bu baax Serigne Atou Mbacké Ndaw ci wala cër bi nga xam ne jox na ko communauté estudiantine bi ba jël ay étudiants ku si man mu investir ma ci liste nationale am pour bëgg wala étudiants yi ñuy défendre seen ay cause ci biir hémicycle bi di ko wax état du Sénégal di ko dégg seen parents yi di ko dégg message bi jàll directement voilà c' est une autre voie de communication boo xam ne opportunité la buñ jox étudiants yi pour xeex seen ay doléances waa campagne bi nag tàmbali na ñun leen ko tàmbalee ci biir Mbàkke Bawal di def ay porte à porte lu ci mel ne marché yi def nañ ay caravane aussi mais dañooy demaat di dox ak dox boo xam ne dañuy jóge population bi di leen laaj pour xam seen ay doléances ak seen ay bëgg-bëgg pour mën cee andi ay saafara ci loolu daal lan ko tàmbalee tàmbali nan ko ci jàmm nag ak salaam di wax ne yàlla nañ ci génn aussi ci jàmm ak salaam yàlla defoon na ci ndam. Hmm. Euh, tey jii euh, seen alliance bi di euh, alliance nationale pour la patrie bu ngeen demee assemblée nationale lan ngeen fa indi lu bees ngañ. waaw alliance nationale pour la patrie ku ko xam da ngay xam ne Serigne Abdou Mbacké ndaw moo nekk ci bopp bi te Serigne Abdou Mbacké Ndao moomu nekkoon na député ci législature bi nu génne muy quatorzième législature. bokkoon na ci député yi nga xam ne ñoo gën a exemplaire ci biir assemblée nationale bi lool ñun étudiants yi xam nañ ko parce que doon nañ ko suivre doon nañ liggéey ak moom aussi muy jouer ab rôle de médiateur entre les étudiants et le gouvernement loolu nag yàgg na koy def ça date depuis 2006 2007 ba en 2023 bii nii kon kooku ci lim nekk mooy jëmal étudiants yi kuy jëmmal étudiants yi nag yaa ngi jëmmal enseignement supérieur donc enseignement supérieur dafa nekk lu sensible parce que étudiants yi ñoo nekk les futurs donc ñi war a diriger réew mi ëllëg day baax trop ñu jox leen cër jox leen kàddu ñu mën a wax ak population bi loolu nag weesuwul dara wululu voteel alliance nationale pour la patrie ay étudiants dugg ci biir assemblée nationale bi mën a défendre cause estudiantine bi beneen bi ci topp mooy ci côté santé aussi dina ci andi ay euh, ay innovation te yàgg na ciy liggéey yàgg na may ay ambulance ci biir Sénégal yàgg nay defar ay poste de santé ci biir Sénégal kon nag ki la jàngaloo ba pare faj la kooku bëgg na nga bokk ci acteur principal yi pour développer sa réew kon xam na ne ñaari domaines yooyu lu mu bàyyi xel la beneen bi ci des tamit mooy artisan yi c'est-à-dire mooy euh, secteur informel bi day liggéey ak ñoom ci ay euh, formation ci ay projet yoo xamante ni vraiment dinaan def ba nga xamante ni seen liggéey dina gën a yaatu ci at yu gën a rafete ñuy mën a jaayee fan mën ak njëg normal loolu tamit bokk na ci ci yu mu waaw loolu yëpp ay projet de loi la parce que am na ñaar fukki projet de loi mhm. yoo xamante ni bu ci nekk am na branche boo xamante ne nii mi ngi ci biir réew mi benn couche boo xamante ni ci population bi la bokk dina ko andil ay saafara ci li nga xam ne mooy ay problème ba pare defal ko ay coppite ci li nga xamante ne nii moom la mëbët ci attaque yi nga xam ne fi ñu toll nii Ousmane Sonko euh, mu ngi koy amal contre l'opposition sénégalaise yow naka nga ko gise en tout cas mayu leen dara ci campagne électorale bi. waaw Ousmane Sonko ku ko xam da ngay xam ne ca lam nekkoon ca la nekk ba tey. parce que boo xoolee même bi mu nekk opposant da doon attaqué gouvernement bi fi nekkoon mais boo gisee muy attaque tey jii nii opposition bi man damaa jàpp ne loolu faiblesse politique la parce que moom li mu doon laaj mi ngi ci commande yi moom mooy le donc kooku war naa mën a proposer sénégalais yi lu concret war na leen a mën a wax ay saafara ci li nga xam ne nii ay jàngoro la yoo xam ne population bi dañ koy jàmbat loolu jàpp naa ne moo ëpp solo te sénégalais yi aussi ci foofu lañ koy xaar kon bu taxawee di wax di xudoo parce que pour daa am benn xeetu politique boo xamante nii dafa war a jeex ci Sénégal mooy politique u sànnantee xeer xuloo ak xeex population bi danoo yeew fu mu toll lenn la ñuy xaar ci ñi nga xam ne ñooy acteurs politiques yi ñu andil leen ay saafara ci jàngoro yi nga xamante ni moo nekk ci biir population bi mooy lu ci mel ne ñàkkum xëy mi ak lu ci mel ni wér-gu-yaram gu sooxe gi ak lu ci mel ni maanaam ah, daa njàng mi ci daara yi kawe yi da am problème parce que na nañoo gis ci réew mi ci enseignement supérieur bi mu am ay problème étudiants yi grève mais boo xoolee il y a de cela quelques élèves yi nga xam ne ñoo nekk en master 1 ci université yi ci bari ci Sénégal dan doon grève di def ay manifestation donc war na noo mën a dox ci beneen dimension bu gën a paisible que nekk ci ay xuloo xeex parce que gis nañ la xew ci campagne bi loolu daal Sénégal yi xaaruñu ko ci moom nanu proposé lu concret incha allahu rabbi bu ko defee population bi nga xam ne jox nañ ko bopp dinañ ko voter ñeneen ñi ci des tamit proposer ñu lu concret comme ci ñun logique bi nekk su ko defee sénégalais yi daal di gis li nga xam ne moom la doon xaar ci ñi nga xam ne nii ñoo takk ndombaay tànk politique yi ci réew mi. waaw moom nee dafa soxla majorité pour mën a taxawal li ñuy wax haute cour de justice daal di juger euh, ministre yi ak euh, DG yu régime euh, président Macky Sall noo gisee loolu est-ce que yéen partagé ngeen ko waa wala déet. waaw parce que man dama jàpp ne Ousmane Sonko li muy def ay ay théorie politique laa ko mën a tuddee parce que tey jii nii képp ku nekk ci gouvernement ak képp koo xam ne sénégalais nga li ngay xaar lenn la rek mooy justice bu jaar yoon képp koo xam ne luubal nga alalu réew mi am na fi ay ay ay cour yoo xamante nii ñu ngi fi OFNAC mi ngi fi cour des comptes mi ngi fi yeneen ak yeneen ñoo ngi fi te ñooñu jàpp na ne dinañ def seen liggéey nam ko waree kon tamit bu waxaatee haute cour de justice day mel ne day dàbbali la fa nekkoon kon loolu pour sénégalais yu comprendre nanu xam ne mu am majorité ak mu ñàkk majorité teewul sénégalais yi justice bi fi nekk dina def li mu war a def kum ci war a épingler dinañ la épingler kum ci war a sujet dinañ la sujet boo luubalee xaalisu réew mi dinañ la tëj loolu am na ñoo xamante ne nii loolu mooy liggéey voilà kuréel yooyu ñu ngi ci réew mi kon nan bàyyi kuréel yooyu def seen liggéey moom na wax sénégalais yi loo xamante ne nii maanaam dina leen convaincre mu nekk lu leer nañ ay projets de loi yoo xamante ne nii sénégalais yi suñ ko déggee dinañ ci d'accord parce que nga nekk ci opposition ak nga nekk ci pouvoir ku ci nekk li la mooy lu jëmale réew mi kanam lu teg réew mi ci yoon lu ci réew mi ci yoonu jàmm ak salaam jàpp naa ne ñëpp loolu moo nu waaw léegi beneen bi aussi euh, transhumance bi nga xam ni euh, fi ñu toll nii na trop euh, naka nga gisee mbir moomule wàllum transhumance Ngagne Faye ñu bari jóge ci opposition bi dem fekki alliance pour dem fekki waaw parce que transhumance nag euh, ñun jàngat bi ñu ciy def mooy boo jàngee yenn téere politique yi danaan la trans le transhumance moralement accepté en politique waaye fii ci sunum réew dafa dem ba sénégalais yi danoo am gis-gis buñ ci am boo transhumé maanaam xool bi lay xool dañuy gis ne ah kii dafa jaay ngoram wala kii dañ kaa jënd donc nag loolu lu leader politique yi war a moytu la beneen anam bi liñ ciy ñaawlu mooy ci voilà euh, période bi ñu ko def mooy moment bi ñu ko def loolu rafetlu bi lañ campagne bi desee ay fan yu new donc nag loolu day wone ne maanaam ñoom danoo xëy na danoo faible faiblesse politique laa koy tuddee mbala ñenn ñi dañuy daw li nga xamante nii dañuy bañ yenn cour yi épingle leen mbala gouvernement bi teg leen pression parce que ñoom njort nañ ne luubal nañ xaaru si réew mi mbala ñi ci def xam nañ ne buñ continuer ci logique bi nekk duñ dugg ci gouvernement bi ñu daal di daw rek daal di jébbali ci li nga xam ne mooy nguur gi fi nekk te loolu lu ñuy ñaawlu la Euh, nekkul lu rafet la te nekkul sénégalais yi loolu lan doon xaar ci ñoom parce que boo porté le ko des sénégalais il faut le porter maanaam avec honneur et dignité te loolu gisuñu ko ci yenn leaders yu ci bëree bëri yoo xam ne ñoo nekk ci kujje politique bi parce que ñu ci bëree bëri daw nan topp ci ginnaaw Ousmane Sonko te teguñu ko ci benn base boo xamante ni bu raisonnable la lu dul daw li nga xam ne mooy gouvernement bu fi nekk kon damaa jàpp ne ñoom dafa am lu ñu jort ci seen bopp mbala ñu jàpp ne yoon dina leen teg foofu nag message bi ñu ciy lancé mooy ñoom ñëpp mu bañ cee am xàjj ak képp ku ci yoon war a topp mu topp la kun ci war a épingle ñu épingle la buñ la waree sujet ñu sujet la bu fekkee da ngaa luubal xaalisu réew mi ñu tëj la comme ni koy defee ñeneen ñëpp wala dóor la amande yi la war a dóor parce que sénégalais yi loolu la ñuy xaar parce que suñ toll bëgguñu réew moo xam ne day am xàjj ak seen ci li nga xam ne mooy wàllu yoon voilà loolu daal la ñuy xaar ci bi te ñi ngi ñaawlu bu baax a baax nag transhumance boobu nga xam ne am na te teguwul ci benn base bu solide. Euh, fitna bi aussi bi nga xam ne am na si campagne électorale bi yow euh, noo ko gisee euh, déjà jàppante yi jot am ko attaques yi nga xam ne jot na am ban jàngat nga si am. waaw fitna ji am ci campagne électorale bi nag duñ def lu dul di ko ñaawlu parce que ku xool réew mi fi mu jógee ba ësti fii boo xoolee avant ñoo dem ci élection présidentielle. danoonu réew mi dafa nekk ci crise bu profonde lépp nekk ay ay mooy kujje politique gi fi nekkoon ak nguur gi fi nekkoon ba dégâts matériel ak dégâts humains yu bari am si donc nag lool nekkoon na lu doon ñaawlu kon tey bëgguñoo gisaat ci li nga xam ne mooy suñu réew ñu gisaat ne voilà euh, la nga xam ne moom lan doon daw di ko moytu ba changer gouvernement parce que Sénégalu jàmm moom la doon woote Sénégal bu tegu ci yoon lan doon woote kon tey buñ gisaatee ay coow li ci ëpp di ci jógee ci gouvernement bi nekk sur place nekkul loo xam day nekk loo xam ne dañ koy ñaawlu rek te di leen wax ne ñu dellusiwaat ñu dalal xel yi te xam ne sénégalais yi ci jàmm ak salaam nga leen mën a convaincre ci idée yu leer nga leen mën a convaincre pour ñu votel la te doomu aadama bi lépp lu mu am lu dul jàmm dina bàyyi loola dem wuti jàmm kon nan ñaan jàmm ci réew mi ñun ñëpp ñu nekk des acteurs de la paix pour que élection yi ñu sumb toll nii ñu ngi koy dund parce que gis nga euh, fan yi ñu ngi def ay yëngu-yëngal di laaj seeni bourse lan nga si mën a wax exactement en tant que étudiant ngañ waaw en tant que étudiant aussi damay waxaat euh, sama frère et sœur étudiant yi ne leen euh, honorable Abdou Mbacké Ndao boo gisee mu jël ay étudiants ku ci mel ni Ngagne Faye mu nekk un ancien délégué nekk un ancien représentant d' étudiant nekk ci biir université Anta Diop de Dakar nekk un étudiant régulièrement inscrit mu jël ko mu dugal ko ci liste na nationale am bëggul lu dul étudiants yi am ku leen di porteel seen ay doléance fa nga xam ne mooy ci hémicycle ba te kàddu guy jub foofa jàpp naa moo ëpp kàddu guy jub ci biir amicale yi bu ko defee amicale yi dañuy soumettre seen ay doléance nga xam ne c'est le député des étudiants mu soumettre ko au niveau de l'Assemblée nationale sénégalais yépp déggandoo ko ñu def ci am jàng bu ci ay solution problème yi am ci université yi nag dañ koy ñaawlu lu ci mel ni xeexam bourse mi nga xam ne étudiants yi ñu ngi koy def parce que loolu nekkoon na loo xam ne jógeen na fi ak gouvernement bi fi nekkoon ñun gën na noo grève di xeex pour lan ay bourse kon suñ ko gisaatee mu am day mel ni maanaam danoo dellu ci ginnaaw kon nag ñi ngi wax gouvernement bi fi nekk ak ministre bi nga xam ne mooy ministre de l'enseignement supérieur Abdourahmane Diouf mu bàyyi xel bu baax a baax étudiants yi xam ne étudiant amul lu dul bourse ku nekk xam na maanaam ne étudiant fi ko bourse toll parce que ñu ci bari ci yenn régions yi la ñuy jóge ci Sénégal te dul am maanaam euh, de fonds financier yoo xam ne dina leen mën a permettre ñu régler seen yenn affaire te loolu fenn rek lañ ko mën a jëlee ñu ci bourse boobu te grève yu ndaw ndawaan yooyu ñuy xeet mën naa dem ba indi leneen te ñun ñëpp ñoo jàngandoo situation bu fi amoon ci jamono yële ba université lu mat juróom-ñett ba jàpp juróom-ñeenti weer kon nag ñaanaatuñu yàlla duggaat ci situation yooyu parce que boo xoolee bu dul sax ICAT université Anta Diop de Dakar yeneen université gisoon nga leen ñoom tamit ñu manifester ci lu mel noonu kon daal ñu ngi lancé waat appel solennel ci gouvernement bi fi nekk mu bàyyi xel bu baax a baax étudiants yi bàyyi xel bu baax a baax enseignement supérieur di leen wax ne ñoom jàng la ñu bëgg nekk ci campus social bu am jàmm nekk ci campus pédagogique boo xam ne jàngalekat yi ak étudiants yi dinaan nekk ci jàmm loolu daal la wër. voilà merci beaucoup ngañ Faye maa ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga xam ne tontu nga ko euh, suñuy laaj. jërëjëf Ndeye Comba jërëjëf. voilà may fàttali ni Ngagne Faye étudiant nga ñu investir la ci liste national bu Alliance. nationale pour la patrie euh, du maire honorable député euh, Serigne Abdou Mbacké Ndao jërëjëf Ngagne Faye jërëjëf Ndeye Comba